أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi tey ñu ngi tàmbali ci xijratu ibrahim alayhi salaam ila bilaadi sham ibrahima ba mu gàddaayee jël ay bagaasam jëm réewu saam lu ko waral mooy xam ngeen ne ci diine gàddaay su ngeen ko déggee mooy intiqaal min baladi shirk ila baladil islaam mooy toxu jóge fu ñuy bokkaale yàlla fu ñu koy moyee nga jéem a dem foo xam ne dañ fay jaamoo yàlla dañ fay kennal yàlla tabaraka wa taala loolu mooy alxijratu laqad istamarra ibrahim alayhi salaam fi dacwatihi ila allahi wa marrat sanawat wa sanawat wa maca dalika lam yastajib lahu siwa zawjatuhu saara wa bnu axihi luut alayhi salaam ibrahima alayhi salaam continue na di woote ci yoonu yàlla tabaraka wa taala sax ci ay at ay at loolu lu mu ciy jàng mooy kuy woote ci yoonu yàlla doo gaaw doo gaaw a découragé da ngay muñ nga continuer continuer continuer continuer loolu yàlla jàngal nañ ci histoire Nuux alfu sanatin illa xamsina aman muy woote alfu sana illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk góor gi di woote rek ani abudullah ma lakum min ilahin gayru ibrahima it woote na ay ati ati ati at wa ma zalika ci loolu lépp ci woote yooyu lam yastajib lahu siwa zawjatuhu wa ibnu axihi lut ñaari nit rek ñoo ko wuy si soxna si mu takk muy saarata ak doomu mbokkam bu tudd luut ñaari nit la am waaw xanaa ibrahima dafa mënul woote dafa amul communication dafa amul méthode amul système ah kay waaye nit ñi ñoo dëgër bopp wa huna ayqana ibrahim alayhi salaam anna juzura shirk fi qulubi haulai alqawm amiq jiddan wa annahum yusirruna ala albatil wa lan yastajibu lilhaqi abadan ibrahima woote ba sonn ñaari nit la am jabaram ak doomu mbokkam bu tudd lan luut alayhi salaam fii la leere ibrahima nag ne comme woote naa ba sonn ñaari nit la am ñi bokkaale moo dee seen xol yi ay nit su bokkaale xasee dugg seen xol ba sax fa comme garab ni reen yi di saxi ci suuf pour nga dindi ko problème la pour nga génn leen ci bokkaale problème la tey lii mooy problème mu Sénégal dañoo gëm bokkaale bokkaale dee ci xol yi da ngay gis nit sax yenn saa yi nga ko ci jëm a génne mu ne la xoolal bul sonn bul sonn man ci lii laay dee allahu akbar nga gis waa ji ak ni mu la koy waxee rek di la xulli ba nii ah tëtëtët am ne mbir yi du lu ndaw lan moo tax tawhid metti mooy opération la da ngay dem hôpital docteur bi ne la yow nga ne ñu ne mu ne la foog yow foog ñu xotti sa biir bi xoolal xotti biir nu mu graawee sa butit yi foog am yuñ ci dagg sax wàññi ko wala sa xol bi foog ñu xotti ko wala sa tànk bi foog ñu dagg ko looy wax docteur bi alhamdulilah man kay lépp lu may delloo sama sago lu may wéerloo rek maa ngi nii bàyyi naa mbir mi sa loxo tawhid noonu la foog nga nangu ñu dagg xol bi dugg ci biir génne li dul yàlla yépp bale ko ba mu set dugal fa yàlla soo nanguwul loolu doo am tawxiid foog nga nangu ñu wax la li ngay jaamu te du yàlla li ngay ñaan te du yàlla li nga bëgg te du yàlla li ngay def te du yàlla foog nga nangu ñu wax la ko nga nangu ko dégg pour boo bëggee rëcc Ibrahima bu mu ko wóoree ne ñii bokkaalee dee seen xol yi dootuñu rëcc dafa dugg ba ci biir ci caaxaan la ñuy dee dootuñu wuyu dëgg fa jaahu l amru min allahi aza wa jal moom la ko ndigal yàlla ñëwee bi an yuhaajira ila ardil kanaan kalaaniyin yàlla ne ko génnal dëkk bi demal kanaan foofu foofu mooy baytil maqdis ca Palestine wa kaana ahluha yacbuduuna alkawaakib Ibrahima fa mu jóge moom ñoom ay xërëm la ñuy jaamu ay garab ak ay gàllaaj ak ay béjjén ak ay lamak ay petaaw ak ay bàmmeel ak ay ay ay ay amma fa mu jëm na xam nga la mu fa fekk ñuy jaamu biddeew fa mu jógee fa mu jëm lu lu tane ñoom ay biddeew la ñuy jaamu biddeew wa hakaza haajara ibrahim alayhi salaam ila biladi sham wastaqarra fi madinatin tusamma haaraan wa kaana kullu hadafuhu daawatu nnaas man xawlahu ila allahi jalla wa ala ibrahima jóge na ban dëkk ban dëkk ah ibrahima fu mu jóge baabil fu mu jëm kanaan ca saam ca Palestine waa dëkk ba lu ñuy jaamu biddeew ibrahima gàddaay na ci ndigalal yàlla kenn du gàddaay lu dul yàlla moo lay jox ndigal ab yonent du génn lu dul yàlla moo koy jox ndigal benn yonent moo mës a génn yàlla jox ko ndigal mu am problème mooy yunus histoire mi ngi ñëw ci kanam bu ñu ko yàkkamti moom dong moo mës a génn jox amu ci ndigal te gis ngeen lam ci jëlee yonent yépp yàlla moo leen di jox ndigal ne leen dem leen ibrahima jot na ndigal yàlla yàlla ne ko gàddaayal mu daal di gàddaay jëm saam ci dëkk bu tudd xaaraan waaye jubluwaayam yépp ci toxu gi ibrahima di toxu lan la mooy woo nit ñi jëme leen ci yàlla ñi ko wër ñépp mooy nañu gis yàlla nañu kennal yàlla nañu jaamu yàlla nañu xam kan mooy yàlla nañu xam lan moo tax yàlla bind leen indi leen ci kaw suuf loolu mooy jubluwaayu ibrahima alayhi salaam jubluwaayam yépp mooy nit ñi nañ xam yàlla ibrahima nekk na ci dëkk ba di woote jëme nit ñi ci yàlla waaye ibrahima xam na xam gu leer ne alima ibrahima alayhi salaam anna ahla hadha al balad yaabuduna al kawakib ibrahima xam na ne waa dëkk bi ay bokkaalekat lañ ndax lan lu ñuy jaam mooy biddiwu fa araada an yusbuta lahum anna tilka al kawakib min al maxluqat illahi jalla wa ala ibrahima bu mu ñëwee ndax dafa ñëw rek ne leen jaamu biddeew araam na yéen bu ngeen dee da ngeen di dem safara ndax ay mushrikuuna ngeen déedéet Ibrahima dafa ñëw bëgg leen a leeralal bëgg leen a saxalal ne biddeew yii ci mbindeefu yàlla yi lañ bokk comme yéen yéen ni ngeen nekkee mbindeef asamaan nekk mbindeef suuf nekk mbindeef noonu la biddeew nekkee mbindeef kenn waru koo jaamu waaye borom bi tabaraka wa taala moo jàngal ibrahim ci suratul an'am aya 76 ginnaaw ba yàlla wone ibrahim malakutu samawati wal ard gouvernement asamaan ak suuf yàlla xamal ko ko won ko ko ne ko ci sama loxo la nekk nekkul ci buuru benn ci àdduna yi lu tax yàlla woon ko gouvernement asamaan ak suuf li yakuna min al muqinin ngir mu am kóolute comme fële bi ko yàlla wonee ni ñuy dundale picc yi ni ñuy dundale ku dee ëllëg yàlla wanaat loolu ibrahima fii ne ko nguur gi man maa ko moom man dong maay buur ñi ngi fiy dégg ñuy buur buur lu yëpp bisa ngi ñëw dañuy tiim ci seen bàmmeel li yakuna min al muqinin ibrahima alayhi salaam jaar na ci pexe pour wan nit ñi ne yàlla rek la ñuy jaamu yàlla mooy kenn kenn du jaamu ku dul yàlla lii ngeen di jaamu xërëm la amul njëriñ la tadur wala tanfa waqafa ibrahima alayhi salaam maa haulai alqawm liyuxaawirahum عندما غربت الشمس وأزلمت الأرض نزل إبراهيم عليه السلام إلى السماء فرأى كوكبا مديعا إبراهيم عليه السلام تخونا أن يوم ngir waxtaan ak ñoom ibrahima bàyyi na ba jant bi so comme waxtu wi lëndëm gi commencé ñëw nazara alayhi salaam ila sama ibrahima xool kaw asamaan su jant bi duggee dëkk bi nu muy def su jant bi duggee dëkk bi nu muy mel day lëndëm lan mooy génn ci asamaan ay biddéew ibrahima bàyyi ba biddéew yi génn mu daal di xool kaw asamaan mu gis benn biddéew fa qaala lahum haza rabbi gis naa sama borom bi mu waxee loolu rek fariha ahlul madina waa dëkk bi yëpp kontaan ndax ñu kontaan ndax biddéew la ñuy jaamu kii ñëw na nekk gan gis benn biddéew ne leen sama borom a ngi nii lu ñuy def ah ñu ne eh gan gi de gan gu baax la eh kii de gan du gan gu yéew bi béy kii de gan gii de gan gu fi yàgg la fariha ahlul madina waa dëkk bi yëpp kontaan wa zannu anna ibrahim alayhi salaam sa yaabudul kawakib ñoom ñëpp ñu yaakaar ne ibrahima mii day jaamu biddéew yi ànd ak ñoom walakin waaye mbokk yi lamma asbaha subha ba fajar jotee guddi gi jeex na su guddi gi jeexee lan mooy ñëw su guddi gi jeexee luy ñëw fajar bi ana biddéew yi fu ñuy dem biddéew yi kenn dootu leen gisaan lu tax biddéew yi kenn dootu leen gis déedéet ndax am na leneen luy ñëw moo leen di ah moo leen di nëbb ba suba jotee biddéew yi nëbb kenn gisatu ko mu daal di fay qaala ibrahim alayhi salaam laa uhibbul afiliin man de bëgguma yàlla buy nëbbutu yàlla buy feeñ di nëbbu bëgguma yàlla boobu yàlla bi ma gëm warul nekk yàlla buy feeñ di nëbbu laa uhibbul ilah alladi yaghib wa yaxtafi fa ana uridu ilahan la yughibu anni abadan man da bëgguma yàlla buy feeñ ak nëbb li ma bëgg gëm ko mooy yàlla joo xam ne duma musa nëbb hatta astati an abudaw ba ma mën kaa jaamu yàlla boo xam ne dama naan moom fàng di ko jaamu ma koy sàkku samay aajo wa atlubu minhu kullu ma ahtaaju ilay yàlla boo xam ne sama aajo yëpp duma ko ñaan sàmba duma ko ñaan demba duma ko ñaan muudu duma ko ñaan yero kan laa koy ñaan yàlla bu ma amee aajo yàlla boobu laa koy ñaan man yàlla boobu laa bëgg wa fii laylati saaniya ci ñaareelu guddi première guddi ibrahima lan la gisoon première guddi ibrahima lu mu gisoon biddéew ñaareelu guddi ñëw na waqafa maahum mu taxaw encore ak ñoom fa lamma zahara al qamar bi weer wi génnee wa basaga nuuruhu wa kaana nuuruhu aqwa min nuuril kawkab daa di tasaare leeram leeraayu weer ak leeraayu biddéew ban moo ëpp doole leeraayu weer ak leeraayu biddéew bu ëpp doole ban moo ëpp doole weer ak biddéew bu ëpp bu ëpp gën a leer weer wi bi Ibrahima bi Ibrahima gisee weer wi moo gën a leer lan la leen wax haza rabbi ah kii nag mooy sama borom kii mooy sama borom léegi bàyyi na bu ndaw bi dem na ci bu ngand ba walakin alqamar ixtafa fi sabaax waaye weer wa moom tamit nëbbu na ca suba fa qaala ibrahim la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ddaalin ay bu ma yàlla jubalul danaa bokk ci nit ñu sànku ibrahima gis na ñaar mu ne ñaar ñooy ñooy yàlla waaye mu daat ciy deñaat gis na lan gis na lan biddéew mu ne li yàlla la loolu nëbbatu mu ne bëgguma ko mu gisaat lan weer mu nëbbatu mu ne li yàlla la mu nëbbatu mu ne bëgguma ko lan la wax mu ne ay yàlla boo ma jubalul gis nga danaa bokk ci ñi perte ñi réer wa axasa yuwaddihu li haulaai alqawm annahu lan yabudu ilahan yazhar wa yaxtafi wa yudi summa yudfi ibrahima commencé nag di leeralal nit ñi waa dëkk ba ban dëkk ah waa saam waa Palestine mu commencé di leen leeralal lan la leen di leeralal mooy pour ñu jaamu benn yàlla moom mu ne bëggumaa jaamu yàlla joo xam ne day feeñ di nëbb yàlla joo xam ne day leer di fay fa hada la yastahiqu an yakuna ilahan mu ne loolu yellul muy nekk yàlla loolu warul nekk yàlla wa fi sabah nazara faraas shams bi bët setee ibrahima daal di gis jant bi jant ak weer ban moo ëpp doole ban moo gën a leer jant mu gis jant bi daal di fenk mu ne hada rabbi hada akbar ah ngand maa ngoog nag kii mooy ponkal mi kii mooy sama borom ndax kii moo gën a ngand weer wi moo gën a ngand biddéew bi kon kii mooy sama borom maa ngi doog a yegg si nag ah walam yafal haulai alqawm anna ibrahim alayhi salam yafal kullu hadha min ajli an yusabbita lahum anna kull kawakib wal aqmar wassumus min makhluqati llahi wa annahu la yastahiqu al ibada illa illa allah jalla wa ala xam ngeen ibrahima lu ko dugal ci li muy def xool biddéew mu dugg mu ne lii du yàlla mu xool weer mu dugg mu ne lii du yàlla mu xool jant mu dugg mu ne lii du yàlla lan moo tax Ibrahima di ko def pour mu wan nit ñi ne biddéew yii weer wii jant yii ay mbindeef lañ ci mbindeefu yàlla yi la ñoom daganul ñu leen di jaamu duñu yàlla duñu dara falamma garabat ash-shams qaala lahum ibrahim alayhi salaam ya qawm inni bari'un mimma tushrikuun mbokk yi ba jant bi fenkee so ibrahima daal di dajale nit ñi nag ne leen man de deñ naa ci xërëm yi ngeen di jaamu yaa xawmu yéen nit ñi inni man ibrahim bariun ku deñ laa ku sori laa mimma tushrikuuna li ngeen di bokkaale ndax yéen da ngeen di jël ay weer di jël jant di jël biddéew di ko dendaleeg yàlla inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana min al mushrikin man day jubal naa sama xar kanam ci yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan bind suuf jeng naa ci lépp lu bon jub ci lislaam ci tawxid man de bokkuma ci bokkaalekat yi فلما ودها لهم أن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة دعاهم إلى عبادة الله الحق سبحانه وإذا بهؤلاء القوم الذين يعبدون الكواكب والنجوم يقولون لإبراهيم inna al alihata satantaqimu minhu wa satuzihi li annahu lam yacbuduha wa lam yasjud laha ibrahima ba mu deñee ci biddiw yi deñ ci weer wi deñ ci jant bi jëm ci yàlla mi bind yooyu yàlla mi bind biddiw ku bind biddiw yi ku bind weer wi ku defar jant bi ba ibrahima jëmee ci yàlla moomu commencé di ko leeralal nit ñi xamal leen ne yéen lii ngeen di jaamu mbindeef la yéen ak moom yéen a bokk boroom ki la fi indi moo fi indi biddéew moo fi indi jant moo fi indi weer kon waroo topp biddéew ak jant ak weer bàyyi ko mu ne leen bàyyi leen biddéew yi ngeen di jaamu xërëm la gaa yi ne ko yow demal rek tey nga dee yàlla yi dinañ la alak yow yàlla yi dinañ la alak sunu yàlla yii ngay bañ yàlla yi dinañ la alak demal rek gis nga lu bari ci àddina lu bari ci histoire yonent yi ak histoire nit yàlla yi nit ñu baax ñi da ngay dégg chaque jour boo woowee nit ñi jëme leen ci yàlla nit ñi ne la li nga li ngay diingat dina dina la alak li ngay wax kenn du ko def dana la alak léeg-léeg nga dégg fii ci Sénégal ku la ne yow demal rek soo moytuwul li ngay wax léeg nga alku léeg nga dee benn waay demoon na ci benn dëkk bi mu ñëwee ñu teral ko ganale ko nawet bi jot fekk ko fa mu ne leen may leen ma tool ma bay gaa yi yéex mu ñëw rek dem ca àll ba jël illéeram rek commencé ruuj fenn rek waa dëkk bi ñëw fekk ko fa ne ko looy def nii mu ne ah ñaan naa leen tool ngeen bañ ma ñëw di bay fii ñu ne ko fii mbay dee la ku ko bay dee fii kenn du ko bay côté bii kenn du fi bay ku fi bay da ngay dee mu ne kon de dinaa dee mu bay foofu ba mu set waa dëkk bi ñëw ne ko yow comme da ngaa dëgër bopp jox ñu sa adresse foo dëkk Dakar boo dee ñu woo say mbokk fii kenn du la fi suul comme yow da nga dëgër bopp ñu ne la fi ko bay dee ngay jàng dëgër bopp demal xam nga lu yàlla nattoo waa ji dafa ruuj ba pare rek daal di siburu ñu ne ko voilà bismillah waxal waxal sa numéro téléphone waxal foo dëkk fii kenn du la fi sax suul comme yow da ngay jéem a jàng dëgër bopp mu ne non non damaa gëj a bay rek moo tax man bi ma kii rek ma so ñu ne ko dee yow da ngay dee yow yow kay saye waa ji daal di tane daal di wér nawet bi daal di sotteeku ba nawet bi jeex waa ji ëpp gerte ca sa dëkk ba mu ëpp gerte mu dajale gerteem jaay nag def xaalisam ci poosam nag di ñibbi dajale waa dëkk bi yëpp nag ñëw ñu ñëw toog mu ne leen asalaamaaleykum ñu aleykum salaam mu ne waaw yéen fi ma doon bay ngeen ne ku ko bay mu ne da ngay dee mu ne maa ngi ni alhamdulilah deewaguma mu ne yéen seen maam yi foofu ñuy bay anañu ñu ne ko sunu maam yi dee nañ mu ne ah kon fii bay dee foofu bay dee ku bay dee ku bayut dee man nag maa ngi dem tool baa ngoog gaa yi njëkkante tool ba ba histoire bu rëy am ci noonu la waa ji ñibbee kon mbir yi ci yàlla la nekk nekkul fii nekkul ci bis yi nekkul ci xeer yi nekkul ci bàmmeel yi mbir yi ci yàlla la nekk kuy jaamu jaamul yàlla ibrahima alayhi salaam wan na gaa ñi ne biddéew yi du dara yàlla lañ war a jaamu lii ñuy jaamu xërëm la du tus du jëriñe du lor gaa yi ne ko yàlla yi dinañ la alak yàlla yi nga bañ a jaamu yàlla yi nga bañ a sujootal danañ la alak walakin ibrahima alayhi salaam yaalamu annahu ala alxaq ibrahima xam na ne moom moo nekk ci dëgg te ku nekk ci dëgg waroo ragal waroo deltu ginnaaw ibrahima ne gaa yi waaw yéen atuxaajuni fillah ndax da ngeen di werante ci man ak yàlla baat bi ibrahima wax ak mbokka mi baat bu ñuy wax fii guddeeg bëccëg la da ngay gis ku xamul dara ku jàngul di werante ak ku jàng atuxaajuni fillah ndax da ngeen di dàggasanteeg man ci yàlla maay yonent bi yàlla yónni ma ñëw naan leen lii la yàlla bëgg ngeen naan ma waaye nag biddiw yi waaye nag weer wi waaye nag jant bi waaye nag ndox mi waaye nag lam yi waaye nag petaaw yi waaye nag xaaw yi waaye nag bàmmeel yi waaye nag diw waaye nag ëkk gi waaye nag lii dëgg-dëgg fii lañ fekk nit ñi ko di ko def nag foog ñu def ko kon ngay dégg lu tax ngeen di sotti ndox seen bundu kër ñu ne ah fii lañ dañoo fekk nit ñi di ko def il faut ñun ñu def ko yow lu tax ngay takk lam bi ah loolu nag kenn mënu ko fay jëlee nag gis nga nag fi loolu mënu leen ko fay jëlee de gis nga atuhaajunanii fillah ndax da ngeen di dàggasanteeg man ci yàlla te man mii waqad hadaani yàlla ma jubal de ku ma topp jub yàlla moo ma jubal kenn jubaluma ku dul yàlla maa ngi leen di yëgal ne yéen wala axaafu ma tushrikuuna bi lii ngeen di bokkaale yàlla man ragaluma ko ndax ku ko deful da ngay deeg ku def lii da ngay deeg man du ma ko def te du ma dee ndax lii yorul sama ruu waaw saa yi nga dégg ñu ne non gis nga yéen moytu leen rek bañ leen moytu rek gis nga gis nga diw ba mu kiyee dafa kii daa di lii di tiitalaata loolu du dara diw moomu dafa waroon dee rek dee na otom daa waroon këpp këpp na kenn këpp ko yàllaa ko këpp du kenn yàlla kese la waaw tukuloo dañuy wax dudd korkor sa te yow nga ko waaye yow tuuti réeru moom xamu leen dudd korkor xamu leen ko de ñu ne béjjén allaadu so tawi ina nafa ah allaadu so tawi ina nafa yow naf joomum ñu ne béjjén bu fekkee dina jëriñ ne jëriñ bopp bu mu jógee béjjén ci ban bopp la jógee ana xar bi rey nañ ko ana yàpp bi ana der bi wala ñu daaj ko di ko jullee ana yax ya seeñu nañ ko funax na ana béjjén bi nga jël béjjén bi takk démb benn jigéen bu nekk États-Unis dafa ma woo téléphone ne ma sama jëkkër day takk ngandum béjjén ma ni ko xam mu ne ma ngandum béjjén bu am ay kawar ma ne te xaw ma béjjén boobu lan la léegi man nan lay def wax naa ba sonn ah loolu doy na waar de béjjén sobe la béjjén sobe la kenn waru ko takk sobe la gis nga xar buy dund sax bu ñu daggee pooj bi xar maa ngi dund ñu dagg pooj bi pooj bi araam naa lekk xar maa ngi dund laa de boo dàqoon benn kéwél ci àll bi nga nekk rëbbkat nga yor sa jaasi nga jàpp ci tànk kéwél bi dóor jaasi tànk bi dagg kéwél bi daw ak ñetti tànk yi araam na nga lekk loolu dagg hmm? waxuma laa ak nag mu dee mid nga jël ko di ko takk loolu sobe la kenn du takk gàllaaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko tere mu ne moom ibrahim wala axaafu ma tushrikun illa an yashaa rabbi shay'a gis nga illa an yashaa rabbi shay'an léegi saa yi ñu menacé la ci dara loolu ñu la menacé daat lay dal yàlla moo ko neex ngir mu natt la mu xool ndax yow am nga imaan ndax dëgër nga illa an yashaa rabbi gars yi ne la boo bàyyiwul lii léegi dara dal la nga tëdd rek yeew rek sa bopp metti wala sa bëñ metti wala sa tànk metti wala sa loxo néewi gëri gaay lu du xool nañ ko ko kii dafa dëgër bopp yàlla moo lay xool nag ndax da ngay deltu ginnaaw wala da ngay dem alif lam mim a hasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yàlla nee na ndax da ngeen yaakaar da ngeen di wax gëm ngeen rek ma bàyyi leen foog mu am ibtila foog mu am nattu ma xool ndax yéen dëgër ngeen wala yéen da ngeen a nooy wala da ngeen a yambare wala jàmbaar ngeen gars yi menacé nañ la sikk nekkul ci ne bu ñu la menacé dinañ dem def dara il faut ñu dem yëngal seeni xarfa fuufa yow demal rek jullil ñaari ràkk dénkal sa bopp yàlla waaw dénkal sa bopp yàlla bàyyil sa bopp ak yàlla bul bul bul dem ci xërëm bul dem ci kenn bu ñu la menacé rek nga tiit demal ci yàlla mu ne leen lu dul yàlla nam ma dara wasia rabbi kulli shay'in ilma yàlla day xam-xamam moo daj lépp wasia rabbi kulla shay'in ilma yàlla xam-xamam ndax am na fu mu eggul yaalamu ma fi samawat wa ma fi l ard wa yaalamu ma yaliju ah fil ard wa ma yaxruju yàlla lépp la xam wallahu bi kulli shay'in alim yàlla ndax am na lu mu xamul xam-xamam lépp la daj tout te yàlla lépp lu mu def ci xam-xam la ko def lépp loo gis ci àddina bi mu am rek yàlla amal ko yàlla bi mu koy def ci xam-xam la ko teg léeg-léeg doomu aadama di làmbatu ba daj dara yàlla nag du loolu suuf si ci xam-xam la ko yàlla tëralee asamaan biddéew yi ngeen di gis xoolal doomu aadama yi li ñuy jàng tey te kenn jàngul lépp dajal ko ngay gis kii xam-xamam ci biddéew kese la yam kii xam-xamam ci suuf kese la yam kii xam-xamam ci ndox kese la yam kii xam-xamam ci doomu aadama kese la yam même ci doomu aadama rek da ngay gis koo xam ne moom xam nga lu mu jàng nopp kese kii bët kese la jàng kii bakkan kese kii gémmiñ kese la jàng nga gis koo xam ne jàngul loolu lépp moom der la jàng ñu tudde ko xaw ma der xaw ma lan xaw ma der mat xaw ma ah dermatologien dermatologue gis nga der kese kese la jàng der der rek der nga gis koo xam ne bët ñu tuddee ko ah dégg ma li nga wax nga gis koo xam ne nopp nga gis koo xam ne allahu akbar tuuti tuuti la jàng tuuti tuuti moo tax yàlla mu ne wa ma utitum min al ilmi xam nga yàlla lu mu ko tënkee wallahu yaalamu wa antum la taalamuun lu tax wa ma wa ma utitum min al ilmi illa qalilan allahu akbar yàlla mbokk yi xam-xamam yaatu na daj na lépp lu mu tëje aaya bi mooy afala tazakkaruun xanaa du ngeen fàttaliku du ngeen xalaat ne yàlla tabaraka wa taala xam-xamam a daj lépp waaw ku xam-xamam daj lépp kii moo jara nëbbatu wala koo xam ne moom ya'lamuna zahiran min alxayaati dunia tuuti la xam ci àdduna tuuti tuuti tuuti la xam yàlla nag mi nga xam ne nee na man sama xam-xama daj lépp koo war a ragal ñaar yi ñoom ñaar koo war a ragal ah kon yàlla la ibrahim mu ne wa kayfa axaafu ma tush ma ashraktum naka laay ragalee yéen li ngeen di bokkaale yéen yéen a ngi jaamu lu dul yàlla man ma koy ragal abadan wa kayfa axaafu naka laay ragalee ma ashraktum yéen li ngeen di bokkaale wala taxaafuuna annakum ashraktum billah yéen ragalul ne yéen a ngi bokkaale yàlla man mi man mi bokkaalewul may ragal ah dëgg-dëgg jaaduwul olof yi dañuy wax ne booy gunge borom biir bu daw bu dawul bul daw wala déggu leen loolu waa ji biir bi day daw mu ne la kaay gunge ma ngeen dem ci yoon bi muy waxtaan yàkkamtewul yow nga bëgg a daw ah déedéet ku war a daw yéen ñaar moom mooy ajowoo daw moo tax Ibrahima ne leen yéen yéen a bokkaale tiitu leen man mi bokkaalewul may tiit abadan kan moo war a tiit yéen ñi bokkaale yéen a war a tiit wala taxaafuuna annakum ashraktum billah ma lam yunazzil bihi alaykum sultaanan yéen ragalu leen ne yéen yéen a bokkaaleeg yàlla yéen yéen a def loo xam ne amu leen ci benn lay ci yàlla tabaraka wa taala ibrahima bokk na ci lim leen laaj mu ne leen fayul fariqayni ahaqu bil amni in kuntum taalamun ñaar ñii ki bokkaale ki bokkaalewul kan moo ëpp sécurité kan moo ëpp kóolute fa ayul fariqayni ahaqu bil amn kan moo war a am sécurité ci yàlla tabaraka wa taala kan alquran moo tontu de allazina amanu walam yulbisu imanahum bizun ulaika lahumul amn wa hum muhtadun allahu akbar ñi bokkaalewul yàlla jàpp ci yàlla kese ñooñu ñoo nekk ci sécurité te ñooñu ñooy jub kon bokkaalekat amul sécurité kuy bokkaale amul sécurité gis nga moo tax saa yoo amul tawxiid lu jóg dal la yonent yi xam nga lan moo leen aar tawxiid ku mu mën a doon tawxiid moo lay aar ku la jógal daanu mais boo amul tawxiid loolu mu ñu naan connexion boo connecté wul ci yàlla ah boo nekkee portable amoo réseau bu la booleeg yàlla portable bi duuyu doomu adama yi foog ñu am connexion seen diggante ak seen borom mooy ñu am tawxiid soo amee tawxiid ku la jógal daanu ku mu mun a doon ku mu mun a doon bu la jógalee daanu ci kawam lay këpp ndax yàlla moo ne ñi am tawxiid ñoo nekk ci sécurité ku ku amul tawhid amoo sécurité nan lañu yàlla defal sécurité incha allah li moo doon dars taw tay bi yàlla tabaraka wa taala mu ne antumul lazina hmm? ayul fariqayni ahaqu bil amni in kuntum muminin ñaari kuréel yi ana ban kuréel moo ci am kóolute ana ban kuréel moo ci nekk ci sécurité bi muy tontu mu ne antum allazina yajibu an taxaafu li annakum ashraktum billah amma ana falan yusibuni shay'un illa bi amrillahi azza wa jal yéen yéen a war a tiit yéen yéen a war a ragal ndax yéen yéen ay bokkaale man mii dara kóolute gu leer la Ibrahima di wax dara tus ci yii ngeen di def duma dal ndax man maa ngi aju ci sama borom tabaraka wa taala lu neex yàlla rek lay def ci man lu yàlla dogal ci man moom mooy am waaye lu yàlla dogal lu munta am lii mooy gàddaayu ibrahim mbokk yi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala ñu jëriñu ci asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh